parce que dañoo ci ni ma ko gisee man dañoo nax sama doom ba jël ko téye ko ci ñoom foofu. sa doom euh, sama doom bi 15 ans la am mi ngi mi ngi juddu le 10 10e mois 2006. góor loola jigéen. jigéen la mi ngi tudd Marème Ndiaye Marème Ndiaye si lañ koy wax waaw demb ci guddi euh, démb barki démb ci guddi daal. lañ joteek moom fii fekk mu ñëwoon fii ànd ak waa xale yu jigéen yi jóge woon universel ñu joteek moom fii ñu xëy démb ci suba ci sept huit heures et demi ci la génn génn daal dem depuis boobu ba léegi kenn gisu ko dem na dem naa foofu ci seen kii ba centre ba. ndax moom mi ngi doon jàng. Euh, bon école école xam xam nga école depuis xam nga ban date lañ joxe woon ne que école euh, arrêté na ba le douze depuis boobu ba léegi moom mi ngi jàng mi ngi dem saa yu xëyee sept heures la fi jóge vingt euh, vingt deux heures lay ñibbisi. ban école la doon jàngee. CM20 lay jàngee mais dafa am benn femme boo xam ne daf ma mos a woo téléphone nee ma naa bàyyi sama doom parce que doom sama doom ak doomam ay xarit lañu. naa ko bàyyi sama doom ñëw ci moom comme ça moom mu boole koog waa centre bi comme ça léegi waa centre bi mun a jël en charge xale bi ouverture école bii di ñëw nii ñu mun ko fayal inscription ak fourniture école ñuy waaw bi ma seet naa ne daal loolu bi mu amee ba léegi xale bi gën a am liberté ci moom di chaque fois di ko fréquenter ci la am euh, li mu bëgg daal. Euh, ndax femme boobu daan nga gis doomam mosuma gis xale bi xale bi tey laa koy soogee gis. mooy doomu femme bi la doomu femme bi xale bi moom xam na ma mais man xaw ma ko tey laa koy soog a gis tey bi ma demee seen kër tey ci suba. Euh, kañ la la woon ne la yaayam kañ la la waxoon dafa bëgg euh, sa doom ak doomam di ànd daaw la wala ren. Euh, ci janvier bi la ci janvier bi bi école ubbee noonu juste waaw période boobu la. Euh, janvier ba léegi daal yaayam moo ko yor moo koy fayal moo koy defal. Eh, te de suñ doom ñun ñoo ko yore ñun yore suñ doom kay suñ doom ci ñun lay fanaan bu xëyee la matin dem ci moom bu demee école xëy na bu jógee école école xam nag cours bi peut-être deux heures de temps la wala une heure de temps bu génnee fa la jëm ci ñoom waaw. waaw lépp lu jëm ci ñàngam daal ndaw soosu moo ko res. dénk ma ko ko de joxuñu ko de parce que moom jàngalu ko jàngul. man barki dembu ci guddi laay doog a xam ne affaire bi du jàng barki dembu laay soog a xam ne du jàng parce que barki démb ci guddi bi xale jigéen ñi ànd ak moom ñëw fii fekk mu daanu ci seen loxo ñu indi fi ñu daal di koy indi biñ ko indee ci lañ xale yi jigéen ñi daal di ma ne ñoom du ay jàng ñoom dañuy ñaan ma ne ko ñaan mu ne ma waaw ma naxanteeg moom ba xam li nekk ci biir ma daal leen bàyyi ñu dem. Euh, laata ñuy ñëw loolu ndax ci ñëw loolu ndax ndaw si nga xamante ni moom moo wax ne nga bàyyee ko ko da ne ndaw si moom moo ne nga bàyyee ko ko am na école bu bu mu koy dugal ñoom ñoo koy yor léppam. centre bi mu koy centre bi mu koy dugal. centre bi kon bokkul ak école. déedéet centre bi école bi bokkul. moom centre bi daal la ko res waaye école bi yéen nii koy fayal di ko defal lépp. waaw d'accord ndax ndaw soosu xamante ngeen. mosuma ko xam mosuma ko teg bët. mais téléphone rek la la téléphone rek la ma woo. numéro whatsapp numéro whatsapp sab la ma woowee dafa njëkk def ma salut xaw ma ko jëluma ko xaw ma tontu wu ko mu def mu woo ma appel fekk may dawal jëluma ko bi ma ñibbisee mu woo sama soxna ci téléphonam nekk dama soxla euh, papaay Marème ki nekk jël jox ko numéro bi woo ci téléphone am mi ngi toog fii te am na kii am na connexion ci la ma woo même sa jabar tamit appel whatsapp la ko woo. bon xaw ma nag wax dëgg yàlla. mais yoroon na seen ñaan numéro yéen ñaar ñëpp seen numéro te xamu leen ko. waaw léegi ci la ma ci la daal di may ne ba léegi dama bëgg comme comme eh, yow xamuloo mais eh, suñu doom yi ñoom ñoo xamante Marème eh, xaritu sama doom la ñoom ñooy ànd ñoom ñoo bokk classe léegi dama bëgg nga bàyyee ma Marème boo ma bàyyee Marème comme ça léegi. Euh, sama doom école bii eh, xam nga centre bi fi mu fi ñu ko fi mu ko inscrire centre bi ñoo yare inscription am ñoo yore fourniture école am ma ne ko ah mu ne ma nag sa doom bu fekkee jël naa ko bu ma ko inscrire ci centre bi bu boobaa année bii di ñëw yow doo fay fourniture doo fay inscription ñun ñooy toppatoo lépp ma ne ko waaw kon baax na man bu ma amee ku ma jàppale ci sama doom de bëgg na fii nag la amee doole pour mun a jekku ci xale bi daal di dem parce que depuis boobu la bi ma ko joxee accord boobu laa gis ne que xale bi am na changement. parce que xale bi mi ngi doon xëy di dem di gont di ñibbisi. waaw xale bi mi ngi doon dem xëy di dem di ñibbisi mais fii ci kër gi moom nangu fi liggéey moom daal lekk moo fi amal day ñëw comme heure yi lay ñëw. tibb ñaari tibb jël boolam tibb lekk li muy lekk ba pare dugg ci douche bi sangu génn dem na gàddoo saagam dem balaa nga koy gisaat 22 heures. suba si ban heure lay dem. suba si 7 heures la fi génn 7 la fi génn bu demee école xawma ma bu demul lay xaw ma parce que man damay xëy liggéey man tamit waaw. noonu daal la demee léegi nag barki demb ci barki da barkaat bi ñu fi ñëwee ci guddi nag ak état bi mu ñëwee. ci laa naxanteeg ñoom ba xam exactement li xew. waaye mosoo am njortu ci moom. non non non mosuma am njortu ci moom. barki démb bi na ngeen toog rek mu yegg si seen kaw. barki démb dañoo toog rek xale yi yegg si ànd ak moom ne dañoo guddee tey il faisait vingt trente dañoo guddee moo tax ñu ànd ak moom ñibbisi amal ah, leen waa kon baax na fekk xale yi di xelli boisson ñu xelli boisson ñu ma nax leen bañ toog fii nga toog nii. mu toog may waxtaan ak moom ba mu wax ma ñun bappa ñun jànguñu dañuy kii dañuy ñaan ma ne ko ñaan mu ne ma waa ma naxanteeg moom naxanteeg moom naxanteeg moom ba xam li nekk ci biir lépp ma bàyyi leen ñu ñibbi njàng. lan la ñuy ñaan lan na la wax. nee nañu kon boo feebaree boo amee ay jafe-jafe àdduna ak yooyu yooyu daal la ma waaw ma ne ko waaw kon baax na. mu ne ma papa yow sax dinaa la fa invité man daal def naa ko comme dencu ma dara ci sama xol ba xam li nekk ci moom parce que moom ci boppam mu ma naan gis nga papa gis nga sama tànk yi gis nga nu mu mel nii ah lépp man bi ma duggee bi ma inscrire foofu ba léegi ci laa gis nga ndoxu siti bi yëpp dem na. ma ne ko ah bon ma ko ah, kon baax na mun ne ma léegi nag papa dama damaa bëgg après yow dinaa la fa invité ma ne ko waaw dinaa ñëw kay loolu yëpp pour attirer ko pour xam exactement li xew. ci laa leen bàyyi ñu dem. Euh, ndax ñoom ñaar euh, doomi ki nga xamante ne moom mu la moo la woowoon téléphone ndax doomam mi ngi ci am. nekku ci woon. yeneen ñaari xale la. yeneen ñetti xale yu jigéen ñoom toujours toujours góor bu ñetti xale yi dañu la ñuy nekk. mais chaque jour ñi ngay gis ak ñeneen ñi duñ nekk benn. duñ nekk benn. kon ba tey ba ba tey gisoo gisante woo ak euh, doomu ndaw si. doomu ki wax ne doomam ak sa doom ñooy ànd. tey ci suba laa koy soog a gis tey le 4 avril. ay onze heures ci laa koy soog a gis tamit parce que dama dem dama dem ci kër ga dama dem wër kër gi ba gis ko moom ndaw sa nekk fa yàlla def sama doom bu góor moo dugg fekk fa doomam bu góor ñu mu explique ko lépp nu mu demee doom doomam bu góor bu nekk sama yaay su fekkee noonu la doxalee sama yaay doxalul yoon. léegi bala ñuy ñëw ci loolu euh, ginnaaw bi nga xamante ni ñetti xale yi dem nañu mu des fi sa doom ba nga waxtaan ak ñoom ba xam li nga xamante ne moom la ñuy def foofu euh, lan nga wax sa doom. man dama ko ne yàq nga sa àdduna dong laa ko yaayam moo ko teg fii ne ko yow ñii mun nga leen bàyyi wala munoo leen bàyyi magame ngi toog maa ngi toog ñëpp a kër gi yëpp a mu toog mun leen munuma leen bàyyi. ma ne ko kii yàq na àdduna fekk guddi na man ma daal di jóg dem tëddi nii la affaire bi amee. Mhm. bi bët setee. gisante bi bët setee non man bu ma xëyee le matin dañ duñ ma gis duñ ma gis bu ma xëyee le matin damaa xëy dem ma ne yaayam bàyyi ci xel ma daal dem mu dem moom dama dem rek moom mu daal di dem ba ci guddi mu ñëw. bi mu ñëwee nag ñëw ak beneen état daal di ñëw ñooñu gàdd ko fii bi ñëwee ci taxi la ñuy wàcc fii léegi benn xale bu góor suñu benn dëkkandoo doon génn gis ko xam na ko daal di koy yëkkati indi ko tëral ko fii ci fauteuil bi magam bi daal di jël ndox benn xale bu jigéen ñi mu ñetti ñi mu ñaar ñaa ngi ci biti kenn ki toog fii ci wetam. ànd naag ñett waaw ñaar ñi ci biti kenn ki toog fii ci bopp. léegi kii daal di jël ndox xëpp ko ci kanamam mu jog kii commencé di ko sëpp naan ko yow. boobu dafa xam. kooku ne ko yow looy looy looy looy looy looy dem di taxawaal comprendre xale bu jigéen bi ne ko waaye doo doo def kii ndànk mu ne ko yow bu may def kii ndànk du yow yaa ma koy wax dégg na dóor na na jóg ma dóor ko. kii ne ko xale bi ne ko sañ nga koo dóor mu ne ko dama koy dóor dégg mu ne ko déedéet da ngay waxtaan ak moom mu ne ko bu waxtaan ak moom du yow yaama koy wax kii daal ne xale bu jigéen bi yow sa sa papa ak sa yaay buñ la taajoon ak sa frère ñu ne la di nga na bàyyi ndax dinga leen bàyyi wala doo leen bàyyi mu ne du leen bàyyi fek maa ngi toog fii ma ne ko eh jógal nga dem kon li Marème waxoon dikkaat na. ñu daal di jóg génn dem léegi kii jàpp marem dóor ko man maa leen àttine ko bàyyi ko kii yàq na àddunaam ba pare bu mu yàq sa àdduna ma ne ko nag gis nga ma ne ko Marème gis nga gis nga dof yi di taxawal ci mbedd ci nga jëm ma daal di ñëw toog xam nga dem tëdd nelaw ma daal di xëy la matin bi ma xëy ma ne yaayam école benn école jàngul Marème téye ko ma daal man huit heures et demi génn moom Marème dama génn rek defe naa dix minutes après moom it mu génn le temps que ñuy yee xale yu góor yi wala di woo yaayam fekk yaayam mi ngi ci toilette di nettoyer le temps que ñuy def yooy fekk moom yegg na fële nii léegi ci la dem. yaayam defe naa ay 15 heures la fi jóge dem foofu bi mu demee foofu bëgg a dugg ñu ne ko doo dugg mu ne ko mareem laa jël si mu ne ko mareem day ñaan comprendre. ci école bi lañ ko waxee loolu. déedéet ca kii ba euh, centre bi. waaw ci centre bi ñoo kooku ne ko doo doo dugg. ma ne ko nag yow bi ma ñibbisee bi ma waxalee la ma ne ko yow yow naka ngay demee ci sa fenn nga fekk foofu sa doom mu wër na leen sa doom a ngi nii dafa daw depuis sept heures ci suba doo téye ci loxo bi nga indi ko déedéet mais nga bàyyi ko fa mel ni ñooñu ñoo la ëpp doole ci sa doom ci laa dog ba pare daal di fay dem fekk fa ñii ñii seen ndogu foofu la leen fekk bi ma ñëwee fekk na suuf sama doom bu góor bi dugg di wax ak ku makki li ma fekk ñoom ñaar ñi ñoom wax mu ne sama doom bi yow da nga ñëw forcer sama buntu dégg te amoo droit forcer sama sama buntu parce que da ma fekk may ñaan ma xam ne waxu xale la ma daal di écarter kii. daal ko ne sëñ bi maanaam ma nuyu ko ba pare fekk ma ànd ak sama benn xarit ma ne ko léegi man dama la ñaan ndax ak li ngay ñaan delloo ma sama doom ma yóbbu ko jàmm ne ñooy mu ne ma sa doom indiwuma ko fi moo fi indi boppam ne day ñaan dafay ñaanlu fii ñi fi dugg bari na munuma ne la kii ak kii ma ne ko déedéet sama doom bi nga nee dafa forcer bunt bi lu tax nga gis ko te mënoo gis ko dugg yow koy yow comme que nekk fii mag kay képp ku dugg nga ne gis nga ko sama doom sama doom mi ngi fii ci biir mu ne ma léegi nag xam nga lan sa doom boo ko gisee boo ko munee téye ci kër ga téye ko. parce que xam na ne ne def na ci xale bi loo xam ne lii mënoo koo téye parce que ñoom rek lay gis loolu après ci laa génn ma ne xale yi fekk xale yi coow li xaw a bari après mu ne ma danga may menacé ma ne ko man fii laa juddoo ci réew mi màggee fi amul ma deful fii ma ne ko nag foo bëgg ñu dem ci. mu ma da nga may menace ma ne ko boo ko jëlee menace muy menace mu naan am na ay xam nga dañuy am ay garde corps yi naan ko euh, si si c'est un menace ma ne ko menace la mu ne ma waaw ko bu ngeen ko jàppee menace rek muy menace mane ne xale yi jóg jóg leen ñu génn ñu daal di génn ci biti bi ñu génnee ci biti ma ne yi xaar leen ma fii ma ci laa dem police. ndax boobu xale yaa ngi leen dégg ci biir ñuy ñaan. boobu tam xale yaa ngi toog ci biir non arrêté nañ ñaan bi instant boobu. mais ñu ngi toog ci biir mais ñu ngi toog ci biir ci lañ génn ci biti ñun bi ñu génnee ci biti nag daal di ma ne xale yi taxaw leen fii ci laa man ci laa dem police parcelle bi ma ñëwee commandant mi ne ma da ngay bind plaint ma daal di ñëw fii ci kër gi ut ku ma bindal plainte mu ma plainte ma bind ko ci turu kii bi euh, centre bi ma déposé ko tey ce matin. bi kii bi ñëwee. Euh, kon xale bi mujjul ñëw démb. mujj fanaan si wul. yéen ban heure ngeen fa jóge yéen ñu ko doon man man ay vingt vingt trois heures laa fa jógee dem police parcelle euh, bi ma ñëwee police parcelle ñu ne ma demal bindi plainte man daal di ñëw fii ji bindi plainte bi ñoom waa centre bi ñëw sama ginnaaw foofu. ki police bi ci police bi. ne dafa am euh, problème bu am ci seen centre bi. kooku ne leen borom kii papaay xale bi ñëw na fi lu tax ngeen téye xale bi mu ne ko buñ ko buñ leen joxee xale bi dañuy dóor xale bi dañuy dañ bëgg a bàyyi ba ñu ñibbi ñu jox euh, ñu génnee xale bi loolu la wax ci police bi. Euh, ndax sa doom yi nga xamante ne ñoom ñoo desoon ci bunt bi euh, yeneen xale génn nañu romb nañ am na xale ñu leen romb dem. waaye sa doom bokku ci. bokku ci woon xale yi foofu lañ nekk ba zéro heure. man bi ma lii lay regle li may réglé police ba pare. ci laa ñëw ci police bi ñëw fekk si leen. ma ne leen comme que demee na nii te wàccee nañu seen tëj nañ seen buntu yëpp ci lamp yaa ngi tàkk ci biir ñëw leen ñi dem parce que leneen lu fi am comme que léegi yoon a ngi ci mu ngi ci loxo yoon kaay leen ñu dem parce que leneen lu fi am dañuy yàqal suñu bopp kaay leen ñu dem xale yi ne ne noona naa leen bàyyi ñu taal ko man leen déedéet nañ dem. seede yàlla ma ànd xale yi ñu ñibbisi pour man man dama yaakaaroon ne ko comme que bu ñu demee xëy na ñii li ñu fa taxawoon moo tax génne wuñu xale euh, bu ñu fekkee ñun dem nañ xëy na dinañ génne xale bi soit ñu dugal ko ci taxi indi ko ba fii bàyyi ko wala ñu euh, laaj ko fan la bëgg dem ci kër mbokk yi ñu yóbbu ko mais ba tey gisuma ko dem naa fa tey ci suba am nay xale yu jigéen yi fa nekk mais jéemuma leen laaj sax dama doxantu ci environnement bi rek xool daay demaat. gisoo ko fa. gisuma ko fa. moom yorul yorul téléphone. non mosul yor téléphone mm, du ma ko nangu. léegi bi nga delloo police comme ñoom ñëw nañ fa démb euh, ne da ci ci ci li nga wax dañoo bañ ñu dóor xale bi ndax ñoom waxuñ na ñëwaat nañ fa indi xale bi. non ñëwaatuñ fa ñëwaatuñ fa. ñoom dañoo def plainte wala. non woruma ma wóoru defuñu plainte buñ defoon plainte alkaati nañ ma ko Euh, ndax dem nga ci kër ki nga xamante ni moom moom nga ko tegoon ci ay loxo. dem naa ci këram fekkuma ko fa doomam laa fa fekk doomam daal di may ne ma nettali ko li ma ko nettali li ma la nettali lépp doom ji daal di may ne sama yaay su fekkee def na loolu def na lu dul yoon sama yaay moo nekkul ci yoon parce que ak nu mu munti demee su fekkee mareem am na problème bi ñoom su. yaayam sa yaayam sama yaay dafa waroon ñëw toog sa wet wala masawu la wala jéem a seet nu ngeen di def ban solution ngeen di def ba gis retrouver xale bi parce que man boo gisee ma dem fa dama yaakaaroon ne que bon xale bi xëy na mu dem fa. mu nekk fa xëy na mu nekk fa mais fekkuñu ko fa ah ci ñoom li ñu wax dañ ma ne newu fi. ndax gis nga ki euh, doomam bi mu daan àndal. gis naa xale bu jigéen gis naa ko gis naa ko nee na moom gisul ma rem mais doom ju góor ji moom xam na Marème nee na Marème daan na fa doom ju góor bi nee na defe naa benn yoon la mos a gis Marème nee na moom benn yoon que moom nekkul ci kër ga ci kër ga moom benn yoon la mos gis Marème. Euh, boobaag tey bi nga ñibbisee ba léegi yaay woo yaay xale bu jigéen bi woowaatul. woowuma mm. woowuma moo tax jël. Mm, plainte plainte bi deuxième plainte bi ma def moo dugal ko ci biir parce que ci la bokk waaw ak benn benn turu responsable boo xam ne bi ma nga ca kii ba ca centre waaw. ñoom fan la ñu nekk. ñu ngi nekk boo rombee case euh, boo kii église di dem camp sapeur bu parcelle bi boo ko rombee tuuti rek boo rombee église bi tuuti rek sa droit ñoom foofu lañ nekk en face euh, garage taximaane xamoo yan xeetu ñaan la ñuy def ci biir. yàlla xam na xaw ma. ngay sàkku ci askan wi ginnaaw bi nga woowee Dakar li may sàkku ci ak askan bi ku ci nekk na nga bàyyi sa xel ci sa doom te sa tey tey Sénégal toll nañ foo xam ne mii tey mi ngi yàqu ku veillé wul ci sa doom da koy ñàkk nañ veillé ci xale yi parce que lii moom. lii moom wala ba gouvernement ci boppam wala population ci boppam ñu jóg ci parce que lii parce que bu ñoom fu mu nekk nii du ñoom duñ dem Sicap duñ dem Sicap duñ dem dag biir dakaar ci banlieue bi la ñuy dem di nax xale yi parce que il paraît que bu ñuy soog bu ñuy jo euh, bu ñuy bu ñuy soog a jël xale bi ci li ma dégg leeruma nee nañ soixante-quinze mille lañ lay jox. ñoom ñoo koy jox. ñoom ñoo la koy jox pour attirer xale bi. ci loolu laa dégg waaw awma ci ma leer nag mais dama ko dégg. te bu weer tam ñoo lay fayal sa jàng jënd jëngal jëndal lay ngay soxla yëpp. waaw mais man sama doom yeggagul foofu déedéet. Hmm. lan ngay xaar ci loxo yoon. li may xaar ci loxo yoon mooy yoon def liggéeyam loolu laay xaar ci loxo yoon fu nekk nii lépp teg naa ko ci loxo yoon nee nañ ma jox nañ ma rendez-vous suba si 15 heures. suba incha allah su fekkee deewuma naa fa dem déglu leen ba xam may wax. Hmm. ngi lay jaajëfal ñu jël yaay. waaw maa ngi leen si ñu ngi lay nuyu. leen di fay. Euh, yow yaay yaayu Marème. waaw ah, man maa yaayu Marème. Marème sama doom la. Marème dama ko yóbbu pour mu jàngi école. saint lay jàngee. ren mi ngi def quatrième Mariam trois mois yi nii daal ma gis moom changement parce que dafa am benn xaritam bu muy àndal ñoo bokk classe sax en même temps la muy ànd ak moom moom xam nga école bi ñoom kii par inscription la ñuy def problème inscription la amoon léegi xam naa xam nga xale moromam rek di di di waxtaan léegi mu ne ko yow Marème yow ñoo jàngi si woo démb mu ne dañ maa dàq parce que fay moo kii moo jox ma woon inscription léegi ne ko kon kaay ma yóbbu ci sama yaay mu am fu ñum la booleel pour ñu jàppale la mu ne ko ah mu ne ko waaw mu dem foofu yaay ji expliqué ko mu ne ko ba demee nga wax ko sa yaay mu ne ko léegi léegi tata dama lay jox sama numéro yaay nga woo ko nga wax ko léegi mu jox ko sama numéro femme bi daal di may woo daal di may expliquer mu ne man Marème dafay ànd ak sama doom ñoo bokk classe léegi dama dama gis ne dafa am problème inscription ndax nee na sama doom bi nee fan yëpp jàngi siwul ma ne ko waa dëgg la mais magam baa ngi koy lijjanteel magam mi ngi koy lijjanteel di ko fayal mu ne man de dama bëggoon boole Marème ak euh, fi sama doom nekk ndaxte sama doom ci camp sociale la nekk ñoom ñoo koy ñoo ko jël à charge bu école ubbee ñoo koy jox fourniture ñoo koy jël ñoo koy inscrire ñoo koy defal lépp saagam ak yëpp ñoom ñoo koy kiyal amul benn financement bu may def ci moom école ubbee moom daa xëy gàddu saagam jàngi lay def ma ne ko ah man de dama am kilifa parce que man tamit mënuma jël responsabilité boobu papa mi ngi fi du ma jël responsable boobu léegi mu ne ma léegi kon nga wax ko papa ma ne ko déet man mën naa la jox numéro papa nga woo ko yow nga wax ak moom yow mi sa bopp moo gën mu ne maa ma ne ko waaw ma ne ko loo ma ne ko loo gis yoon la mu ne ma waaw ma jox ko numéro papaam ba ko njëkkee woo whatsapp la ko woo fekk mi ngi dawal mu jëlu ko mu woowaan ma mu ne woo naa papaay ma ne waaye jëlu ma ma ne loo ko woowee mu ne whatsapp ma ne ko moom bu liggéeyee du taal connexion bu wàccee ba ñëw ci kër gi lay taal connexion mais bu dee day liggéey day fay connexion mu ne waaw kon ba mu wàcc mu defaat ko beneen signe sali kii xamu ko tontu ko ci laa ñëw ci papaay mare ma ne ko am na benn femme bu la woo mu ne ma kooku de ci appel whatsapp la ma woo mais dama doon dawal mais jëluma ko ma daal di koy expliquer lu ma wax dama nag man du ma ci responsabilité boobu jox naa ko sa numéro moom dina la woo wax ak yow man ma waaw. ca la ko woo expliqué ko moom foofu la ñu naxee daf ñoo nax carrément daf ñoo nax ndekete lum ñu wax yooyu yëpp amul def nañu cas social la ñu wax moom. cas social la ñu wax pour ku la jàppale di la dimbale xam nga. boo amee ku naan da lay jàppale sa doom di la dimbale surtout mu nekk si njàng te leer na la sa doom bi ba gën a jàng da ngay nañu nag te ndax nañu ba ci kanam yàlla tooñ nañu tamit dégg nga papaam daal koy nangul ne ko waaw papaam nangoy ca la xale bi am am na fu ñu ko njëkkoon yóbbu fii muy jànge fii cours du soir kër xale yi fii Grand Médine école bi ci Grand Médine la nekk kër xale lañ koy wax képp sa doom kuy def cours du soir foofu ngay dem foofu ngay yóbbu sa doom muy jàngi te ba muy jàngee foofu moyen yu doon am moo gën a baax ka ren nii bulletin bi ñëw nii ren bulletin bi ñëw nii kenn kontaanu ci xam nga léegi su ma waxee ma ne ko Marème yow lu tax léegi nga bàyyi jànkir xale mu ne ma fi may jàngee mënuma ko boole bii ndeke de foofu jànguñu ndeke du jàng la ñuy def femme bi daf ñoo nax ba tëdd ci suuf. yaa ngi wax na ci biir ñetti weer yi da nga euh, yëg da nga sentir soppaliku bu am ci moom ban changement la am. parce que day bu xëyee 7 da doon dem bu xëyee 7 bu yenn saa day wàcc 3 heures wala mu wàcc 4 heures wala mu wàcc 5 heures lu guddi guddi guddi 17 heures lay doon kii 18 heures lay doon lu mu guddee wàcc 18 heures lay doon waaye ba mu foofu chaque jour ay 20 heures 21 heures lay ñëw su ma ko waxee mu ne ma dañoo duñ gaaw ñu pare looloo tax may guddee su ma ko waxee saa yi wàccee rek ma tëb dal ci moom mu ne ma dañuy pourtant jàng si jàng rek laay nekk de moo tax ñuy guddee ah man tamit comme mu jàng la ma wax mag jàpp ne rek jàng la ndekete du jàng samedi daal moom boo gisee affaire bi daal ñëw ba nii ñu xam nu mu nekk lu si nekk yëpp jour samedi bi la. jour samedi bi daal man affaire bi sax man damaa tiit sax jour samedi bi lu mu génnee fii parce que dama jékki-jékki rek mu ne ma maa ngi dem suñu centre bi ma ñëw. billaay wallaay damaa woor ma ne ko yow centre bi heure tey samedi encore. chaque jour dama koy coow ma ne ko yow samedi ak dimanche yëpp yéen da ngeen koy jàng yow foo ma see gis loolu mu ne ma waaw ndaxte ki ñi ñuy jàngal samedi ak dimanche lay seen temps di gën a yaatu ma ne ko ah loolu day na waar léegi samde bi mu dem mu yàgg mu nekk fa nekk bay vingt vingt et une heure vingt deux heures jour boobu maa doon taar ma dugg si sangu ba pare dugg si néeg bi sol yére ma dégg di jékki-jékki dégg ñuy nuyoo ma yundu rido bi nii gis ko mu ñëw ba ci buntu néeg bi delluwaat ma ne ko yow ni nga yow billaay yow da ngaa ñàkk kilifa si suba ba léegi heure bi ngay ñëwaat ma defaat nii seen benn faam toog nii ñaari toog ne fek solo ma yére ma duggaa ci biir ca nag ma dégg papaam naan la dee yegg si leen yegg si leen yegg si leen ñu insiste mu insiste pour seen yegg si ñu egg si ñëw toog kenn ki toog nii kenn ki toog nee Euh, ginnaaw bi nga xamante ni sekk nañu ak papaam waxtaan euh, ak bi nga xamante ni ñëw na xëm ba ñu ximali ko ndax ci guddi gi sekk nga ak waxtaan sa doom. waaw ba mu ñëwee ba mu ñëwee ba mu ñëwee moom bañ ko dafa foofu ci ñoom looloo tax ñu indi ba mu ñëwee ma ne ko yow loo doon def foofu yow ba heure bi ak ñi nga ànd ak ñan la mu noppi mu ne sama bopp bi day metti man sa bopp lu koy metti mu ne dama daanu looloo tax ñu indi ma ma ne ko daanu ma ne man jur ma doom buy daanu ma ne kuy daanu amul fii ci kër gi ma ne ko benn néeg laa yor te dama njaboot ma ne ko sa fréquentation bi ngay dem fii ñoom si si fii nga commencé di indi ay daanu man du nekk kuy daanu ndax man benn néeg laa yor te dama njaboot munu ma garde kuy daanu arrêté lii ma génn papaam tëdd nii ma toog ni mu toog nii magam bii ñëw toog ma ne ko Marème mu ne ma naa ma ne ko yow ñii dang leen dang xam nga la laa bëgg nga bàyyi leen ndax mën nga leen bàyyi mu ma déedéet ma ne leen bàyyi ma déedéet ma ne nga bàyyi leen kon xam nga jàpp leen njàng mi nga bàyyi ko nga toog ci kër gi comme jàng da nga doon jàng léegi nga ne bàyyi wala njàng mi ci bopp ngay bàyyi nga bañ a jàngeeti nga toog ci kër gi doo dem fenn mu sëgg noppi ma jóg duggaat magam bi jóg ñu xëy dimanche mu yeew sel mu ñëw toog fii ma nekk ci néeg bi man a raqam bi ana mu ne mi ngi fee toog ma ne ko wool ma ko raq na gisuma ko am benn raqam bu góor bu doon fóot ne ma ne ko ana Marème mu ne ma Marème romb na ni ci laa ñëw tombe papaam génn ma ne ko comme magam na foofu xaaram mu gunge ma foofu ñu dem seeti Mariam en même temps damay jaale ji waale ma ne ma waaw ma dem ma yegg ci centre bi ba ma gisee centre bi sama àddina dafa tukki parce que dama dugg seen croix bi ma ne waaw ah xaaral ma yegg ba pare ma yegg fekk leen ñuy def seen ñaan mu ñaan ba pare moom mu tante bi di bale mu dugg ci néeg bi kooku daal daa jékki-jékki rek dégg ay daal di yëngatu ba muy sëggi rek ak bi muy jéggi fii di muy benn mu ne mare mare mu daw mu woo ma kajaa kajaa may génn ba may génn taxaw ci buntu kër fekk yéeg na escalier bi di daw maga mayee magay ma ne ko maanaam de dem na kooku daa tiit ba dafa jóg dafa jóg toog tëddaat keneen ki moom nee na affaire bi dakaa jëlee kaw nee na comme gént la ko def ne dégg na ñuy wax mais dakaa def comme ay gént moo tax munul sax jóg moom nelawul de neen daa mënul jóg te instant boobu bu ñu jógoon ñoom xale góor bu ñu jógoon bu ñu dàq jee mënoon na ñu jàpp ko mais dañoo tiit nu ñu doon yuuxoo mareem mareem mareem mu daw ne fees dem dimanche boobu mu yend ma xëy ba ma ko kii waxee rek ma sol sama daal ma sol sama yére sol sama daal ma yee ñaari magam yi ma ne ko kaay leen dem Marème demati na ma jël fi oto dem ma yegg fekk centre bi ubbeegul léegi foofu dafa am yenn benn garage 63 bu fi nekk noonu ñu miire ko ma ne leen kaale ñu toogee ni ñu xaar ba ñu ubbi ñu dugg noonu toog toog toog chaque instant ñu yurndu gis ubbiwuñu ba ñu toog lu yàgg am kenn ku góor ak kenn ku jigéen ñëw taxaw na si bunt bi ku jigéen ki mooy ki àndaloon nag moom ku àndaloon ak moom nee na feebaram bi bañ bañ ko ba mu ko dalee 2004 la kii daal di reetaan yow kay yow yaa mën jur Marème Marème Marème 2004 juddugul man ko kii kay mag la 2004 boobu feebaram bi boobu la ko dal boobu Marème juddoogul Marème juddugul 2004 nee na nee na foofu la fajoo foofu la wér loolu la waxaat expliqué ak papaay Marème man ku ma ñooñ ba léegi waxantuma ak ñoom ñoom ñu ko fi indi woon ñaari yoon yëpp waxantuma ak ñoom kenn si ñoom yàlla defa dogal première bi papaam lañ waxal deuxième bi kii magam bi lañ waxal. comme yow mi nga xamante ni dem nga ba dugg ci biir école bi ba ba gis leen ba fekk leen fa ndax laajte nga. laaj naa ma ne leen yéen Marème mii ba ngeen koy adopté si seen biir est-ce que laaj ngeen ko ndax musulman la wala chrétien la ñu ne ma non ma ne ko si da ngeen ko waroon laaj parce que yéen nan ngeen di jëlee xale ma ne kii mineur la. kii gis leen ko nu mu toll nii mais di 15 ah, ans kii 16 17 ans sax motugul ma ne ko la judd nan ngeen di jëlee xale bu ndaw bu toll nii ngeen dugal ko seen biir ci seen diine laajoo leen ko ana parent laajoo leen ko ana famille am yéen ngeen jël ko noonu rek ngeen dugal ko seen biir yéen li ngeen def di yoon yéen man su ma leen porté plainte dañ leen di jàpp parce que da ngeen daa mel da ngeen kidnappé sama doom kenn ci ñoom ne ma noom maire bu wax lool man ne si loolu laay wax ma ne ko loolu laay wax parce que kii mineur la njën jël ko dugal ko seen biir dugal ko seen lii du yaayam du papaam du magam du kenn kooku ci la ko woo mu ne Marème ba ngay ñëw fii est que wax nga sa yaay lu la fi indi parce que ñun dañ koy dimbale rek te yàlla tax yaakaaruñ ci lenn dañ koy dimbale parce que dafa am feebar bu ñu gis ci moom man ko feebar boobu man mi ko jur ba joonu yàlla tey gi musuma ko gis ci moom musuma ko gis ci moom yéen yéen tey ngeen gis ko ci moom xanaa fii la ko jëlee fii la ko jëlee ci seen seen fii la ko jëlee waaye mosu ko am ma wax leen ko loolu ko na mu nee maire meer bi wax ma ne ko loolu laay wax loolu laay parce que Marème ba mu commencé di fréquenter si yéen laa commencé gis muy daanu tax man xaw ma luy daanu te yéen boobu yéen ñaari yoon seen ji nit yi ñoo koy delloo si kër gi kon yéen a ko def yéen a def ci moom feebar bi. li muy daanu rab la. ñoom nee nañu rab la. ñoom ñoo ko wax nee na rab lañ gis si moom dañ koy génne rab bi moo tax ñu ki ñu ciy jël man kay bu dee moom xale moom xale ñëw ne nee na dafa feebar da ngay bëgg ñu jàppale ko da ngay lan ngeen waroon def waru leen koon wax dama nga ànd ak sa parent wala sa grand frère wala sa grand sœur mu ñëw waaye déedéet moom kese mu ñëw ne damaa feebar da ngeen jël ko adapté adapté ko seen biir yéen seen lii looloo fi ne sama doom bu jigéen bi na ma wax nga li ngay wax kaa ñi dem bàyyi leen fekk ñoom ñëpp ñu ñëw wër ma fi mu ne ma toogee ni sées bi ñoom ñëpp ñu ñëw wër ma góor ñi jigéen ñëpp ñëw wër ma ma génn génn xol bu metti ma dem sama kër mag bi ma yegg si mu ne ma yow lan la ma ne ko dara boo man xam naa am naa lu ma metti waaye mun moo jàkkaarloog ma wax ko ndax instant boobu sama xol baa ngi fees mun ma wax ba tey jii nag Marème ñëwul démb ñii man dimanche bi fa laay yend ak magam ñi ñoo yend dem ak ñëw dem ak ñëw dimanche bi ñuy dem foofu gisuñu ko fanaan siwul démb si ñoom la fanaan parce que ñoom dem nañ ñii di dem police ñoom ñu dem foofu ñu ne xale baa ngi foofu mais dañ koo dóor moo tax dañ ko bàyyi mu ñibbi dañ koy dóoraat est-ce que yoon may na la ñu téye doomu jàmbur ah ci xale bu ndaw yaayam moo njëkk a ñëw ne bàyyi leen ma yóbbu sama doom ngeen bañ papaam ñëw ne bàyyi leen ma sama doom ngeen bañ loolu yoon la wala bu dee loi bi moo leen may loolu tam dama dama bëgg a xam ndax moo leen may loolu ñoo leen jox autorisation boobu buñ jëlee su doo nañ jël doom jàmbur yi di leen adopté seen biir te fekk seen parents ànduñu ci man ne naa ko lii Marème dugg nii du ndeyam du baayam du magam ku ci ànd kenn ci famille àndu ci ndax seen place bi place bu mag la wala bu ndaw non moom boobu kii benn salle nii rek benn salle ñu bind ci bunt bi universel parce que man ba ma boo boo ñi boo ñëwee boo fekkul leen ci ci kii bi doo xam ne foofu dañ fay def dara pour yow affaire euh, vari moo fa nekk ak yooyu ndax bunt bi loolu lañ ci def ay orange moo ne ay kii yooyu loolu lañ ci def loolu lañ taf ci bunt kii kii vert buntu ki bunt buntu vert loolu lañ ci taf. boo duggee ci biir fekk ñu ngi ñaan. boo duggee ci biir fekk ay 16 salle mu yaatu. yàq nañ sama àddina yàq sama àddina doom tàqale nañ ma ak sama doom massa ñu ngi leen bëggee jàngam bi njàngam bi noonu la ko fonkee loo wax ma ne damay jàng dimbale sama yaak sama jaajëfal sama xol a fees sama xol moo fees foog ma jooy sama xol moo fees ndax daf femme bii daf maa nax daf ma nax. yow tamit mosoo gis femme bi. mosuma ko gis. mosoo gis tamit doomam. doomam ñëw na fi doomam ñëw na fi ànd ak benn yoon saa yi ma téléphone mu ne ma fu ñëw dama amul jot xale yi nii xale yi naa. ma ne ko waaw man comprendre naa man mi sax man sama dam man man sax man nekk ma koy dox ma xool ko ci sama bopp rek ndax man duma duma dox man xëy na comme daa mel ni comme man te lii dama dikki yàq na sama àddina doom dugal ko ci religion boo xamante ne du si ndey du si baay. ñoom laaj nga leen ban diine lañu ñu bokk. doo leen la nangu wax luñ wax luñu kii daa dañ ñaan ñu dañuy ñaar rek te yàlla tax di faj ñu di dimbali ni ku am problème bu ñëwee fi ñu dimbali loolu lañ lañ wax loolu lañ lañ wax. waaye waxuñu la ci diine bii lañ. waxuñu waxuñu ñoom duñ la sax may abse foo waxee duñ la ko sax may. lay jaajëfal lan ngay xaar ci loxo yoon. man daal maa ngi tàllal sama loxo ci yoon def liggéeyam. jàppale ma rek te yàlla tax ba sama doom bi del ci sama loxo loolu rek laay ñaan ak ku doon nag ak yéen ñii maa ngi leen si ñaan ngeen jàppale ma rek te yàlla tax sama doom bi mu ma ñëwaat ci samay lox loolu rek laa bëgg. ñu ngi lay jaajëfal euh, jërë ngeen jëf mbokk internet yi. si ñu lay. maa lay fay. yow euh, lan nga ci euh, xale bi. man maay bàjjana maa topp si papaam. waaw man de demaa ñëw kër sama frère bi dafa ñëw sama kër mu na ma ah man de temps yi damaa am benn jigéen boo xamante ne sama xaritu doom bi sama doom bi ku mu bokkal classe yaayam daf ma woo parce que dañ ko dàkkoon si ouverture école yi ah, fayagu ma woon fourniture jëndalagu ma woon fourniture exclusion mu daal di may wax loolu ma ne ko ah mu ma léegi nag da koy jël si dugal ko si seen centre sa kii si cas social pour bu école bu ubbee ñoom ñoo koy jël en charge ma ne ko ah ma ah, loolu de baax na su fekkee noonu la mu ne ma waaye ne femme bi de dafa baax nee na ma sax moom dafa bëgg sama doom bi ba da koo bëgg sax may doomam ma ne ko ah ma ne ko ah loolu wóor na ma ne ko ah yow nit ki ñëw moom chrétien la bokku leen diine ba pare léegi yow mu ne man damaa bëgg sa doom ma dama koo bëgg mu nekk sama goro. Ah, kon femme bi chrétien la. léegi njaago la. nu mu tudd. ma Hélène Hélène Mendy la tudd. loolu loolu tey suba sama benn xarit moom dafa dëkkee foofu ma ma wax ko mu recherché ma ko ma xam loolu te suba laa xam loolu moom xam kii sama fer bi sax waxagu ma ko mu ngi koy doog a nii ma koy wax nii. comprendre léegi bi ma ko waxee loolu man ko man de su fekkoon ne maa jur xale bi man maa nekk sa place ma ko damay téye sama doom parce que su yàggee moom xamoo moom ndax yoom sa doom bu jàngi jee bu wàccee école ndax dafay dem si biir kër ga pour doomam bu góor di ko doxaan parce que comme dala kaa kàll nii parce que moom dalaa kàll bëgg mu nekk sama goro te bokku leen diine kon moom koy sa doom dafay ferkante këram si doomam bu góor mu di ko doxaan te yow xamoo est que doo gëstu loolu sama frère bi na ma ah fu mu nekk nii de loolu la ma wax man ne ko amane ah, su ma nekkoon maay ngi dama koy lijjanti dama du ma bàyyi sama doom di ferkaanti foofu parce que mun na am lu mu la kaalee nii doom bu bi la ko bëgg mu la gis ne mu koy doxaan mu mu bëgg a détourner sa doom sama fere bi na ma waa xam naa naa si naa si si gis dinañ ci waxtaanaat après mu jóge sama kër mu ñibbisi mais boobu léegi saatu ma ko nag léegi barki bi bi ma ñëwee fii si kër gi bi moom bi ma déggee rumeur bi après ñu dafa daanu foofu sama benn dëkkandoo bu nekk fee moo for xale bi indi ko fii boobu xale bi dafa xam dafa xamee seen classe ñu ñëwaat ba foofu xamaat mu nekk ay 23 heures minuit moins ma daal di ñëw xale yi woo ma ma daal di ñëw fii si kër gi bi ma ñëwee ma fekk mu xam xale yi jigéen yi ma fekk wax ak sama frère bi ba ñoom ba ñu dem ma ne ko lépp rek wóorul parce que ñoom ay chrétien lañ ku musulman du fréquenté chrétien ndax sa ñoom dégg naa ñu ne ñoom yoof la ñu nekkoon dañ faa amoon ak seen mbokkum ke ke seen yeneen yi ba ñu taal ñoom si ñu nekkoon foofu ba ñu xeex fa waaw léeg-léegi benn xale góor moo ñëw fii démb ci guddi bi coow li amee xale bu góor bi nettali loolu man gisuma fekkewuma waaw xam ni looy wax la nga a mën a waxaat suba ñen dañu amoon problème yoof après ñu taal seen foofu ñu nekkoon ñu ñu tudd sax proté xaw ma nan man mënu ma wax protection xaw ma noonu genre yooyu la ay chrétien lañu waaw mooy ñooñu di joxe foo yi ñooñu la famille yooyu la léegi bu mu waxee loolu man ne ko ah man de daan na ñëw sama di ma jox foo mais su ñëwee man du ma ko jël du ma ko jël parce que ñoom dañuy na xale yi rek noonu la ñuy def mais ñan ñoo taaloon seen place bi waa yoof waa yoof xale bu góor bi nettali fii démb nee waa yoof la ñu amuloon problème xam nga waa Ngor yooyu taal seen foofu seen place bi comprendre nga. chrétien yi waaw ñoo taal ñoo joteeg ñoom léegi ñoo ñu taal foofu benn xale bu góor moo ko fi nettali démb ñun xam nga wóoruñu mbir bu amee ku nekk da nga ñëw waxee comme ni nga xamee ak li li nga xamante ne ñoo xam nga. mbir ndax ñun loolu yëpp xamuñu ko woon problème bi bu mu amee si la ñu xamee waa si la yooyu yëpp sullee ko si la sama jabaru frère bi dem foofu bu demee foofu la moom tamit mu gis loolu tamit mu ñëw tam mu expliqué ñu dégg mais quant à kii xale bi paanul kilifa manqué wul kilifa parce que kii ay doom 23h moom dafay tëj buntam xale yi taxawaalu wuñu. xale bi daawul fanaan àll. mosul am mi ngi doog a fanaan àll mosuta fanaan àll lu dul démb ay doom mosu ñoo fanaan àll man chaque fois dama ko ne bàyyi da ngaa war a sant yàlla ndax yow 23h nga tëj sa bunt say doom tëdd am na yaay yoo xam ne wala papa yoo xam ne ngi toog di xaar seen doom 2h du matin kon da ngaa war a sant yàlla à chaque dama koy wax moom mais moom doomam yi taxawaalu wuñu fenn wutu wuñu dara. yàlla xam na ko te yàlla rek a tax may wax damaa woor nekkul li ma bokk ak moom yàlla rek a tax may wax te suñu famille ku ko dégg te xam ne na loolu moo am moom du farul doomam nekkul tamit dafa manqué moyen ba nga xamante ne dafa jël doom ni ko kaay dimbali ma waxu ko loolu femme bi moo ko ne dama bëgg a jàppale sa doom parce que moom sama doom ay xarit lañu moom Hélène moomu Hélène Mendy moo wax loolu mooy yaayu Kelemaas yaay Kelemaas mooy xaritu Marème Sy comprendre moo mooy yaayam mais moom moom femme bi bu mu woowee sama frère bi daf ko nax ñoom ñëpp dalee na nax gañu seen confiance na comme que sa doom mi ngi jàngi dàqoon nañ ko école su ma ñëwee si yow ma ne la ah, bi de sama centre man fi doom sama bu ma sama doom su école ubbee ñoo en charge dëkk bi dafa gar Sénégal fii dafa neex parce que chaque fois da nga gis koo ni da lay ñëw ne ah, naa fi cas social kaay ma jàppale nit ngi jàppal nit ñi te yàlla rek a tax xëy na seen comme xale bi dafay ñëw si ànd ak si seen doom jàpp nañ ne rek femme bi mu wax moo am dëgg la xëy na ko dugal si diina catholique wala si diine boobu mu ko dugal xen du ko dugal foofu mais lépp lu mun a am ak lu mun a xew rek femme boobu moom moom moo na waa kër gi moom moo détourné seen xel moom moo leen nax moo nax mareem moom moo fa dugal mareem parce que ñun ñu xamuñu leen ñun moom doomam la ñu xam doomam mooy ñëw di ànd ak mareem si ñooy ànd jàngi école ñoo bokk école seen fi ñuy jàngi école bi kenn du ko fay mais école su tëjee ba tëjee da ngay fay solution 22000 papaam instant boobu noonu liggéeyagul woon ci ginnaaw loolu la am liggéey looloo taxu ñu d'accord mareem si léegi nag si la ko dem ñi jaam si la ko demee fayal ko bi ñu ko fayalee mu continuer di jàngi njàngam di def ay études magam si la ko fayalee mu dem continuer dem jàngi mais mosuñu ko ñaan añ mosuñu ko ñaan reer mosuñu ko may yére mosu ko may lenn mosu ko may dara parce que ñun ñi famille bi kenn xamu ko mosuñu fréquenté këram kii du kii amul jot su yeewoo sa tër dem na balaa muy ñëw fii 19h si guddi amuñu jot ki mooy taaw si kër gi àll la yéen ñu ñi ñëpp dëkkuñu dañuy sëyi mais xam naa ne moom nekkul éducation wala nekkul coono ba nga xamante ne fii si kër gi bu nga xamante ne moom war na détourné xale bi déedéet dañuy añ fii dañuy réer dañuy ndékki ñàkkuñu moyen bu nga xamante ne macha allah sant yàlla ñàkkuñu moyen bi nga xamante ne moom dañ koy sàkku si moom dimbal kenn sàkku ko ci moom moom moo ne kaay ma dimbali la te man su doon man tamit dinaa xaw a dugg si loolu te loolu mun na convaincre ku ne ku nekk loolu mun na la duggal si si si lii nii waaye ñu ñu ñu yeewaat yaay rek kenn ku ci nekk sa doom euh, bu nekkee fenn yoon la ngay dem ba foofu di xam ci. waaw njum njumte am na xam nga njumte fu ma amee man su fekkoon man la man damay dem ba xam sama doom fu mu na na rek xam nga yoo xamante ne dafa jàpp na rek lu mu nekk rek ci lu neex yàlla la parce que fii dañuy julli dañuy woor séjaar yi day wër kër gi deux heures dañuy julli suba dañuy julli heure bu ne day ngi nekkul kër goo xamante ne dañuy yow kenn du julli amul ci julli la ñu yar ci julli la ñu màggee si woor la ñu màggee bañ toll ñu toll ni ci loolu la ñu yaroo maram su loolu la yaroo fii nekkul cas social ba nit di jóge fa la ñu dimbale amul fii ñu ngi sant yàlla dëkkandoo yëpp dinañ ko seetaan ñu ngi sant yàlla bu baax waruwuñu dara yaay deena bàyyi deena waaye moom mii mooy suñu kilifa waaye ñu ngi sant yàlla di ko sant bu baax lii na yéen a waajur bu ne man yeewaale na ma ndaxte dama lay dimbale da nga jël sa doom nga ne ko demal yéena ku ne lii de ku ne war na laa yee si addina sa doom tamit ku muy àndal ku ne na nga ki muy àndal kan la ak ku doon nga gëstu ko lii de man na ma gën na ma yeewaat man man moom gën na ma yeewaat fii la ñu juddoon Dakar gi bañ toll ni ñu toll lii mosuñu arrivé Mermoz lañ dëkkoon jóge Mermoz ñëw fii Grand lii moom mosuñu arrivé mais moom moom jël na xale bi détourné xelam détourné waale xelu papaam ak yaayam te parce que tamit lu mu ne détourné détourné na ku ne waaye ñun yaay ñu defaruwaat defaraat suñu toogaay ku ne war ngaa xam soo doom ku muy àndal muy jigéen du góor na nanga ko gëstu nga lijjanti ko nga xool parce que yii moom wóorul waaw ñu ngi ñaan ndimbal nag si ñëpp ku ci mun a jàpp te yàlla rek a tax woon ñu yoon fu ñu mun a jaar ba ñu xale bi taxali ñoom ñu ngi ciy ñaan ñëpp ñu ngi ci sàkku ndimbal te yoon tamit mu def liggéeyam te yàlla rek tax